ممن يدعو من دون الله من لا يستجب له إلى يوم القيامة الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف العالمين سيد الأولين والآخرين نبي الرحمن allazi arsalahu llahu rahmatan lil alamin sayyidina wa xabibina wa mawlana muhammad salallahu alayhi wa sallam wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim amma baadu ayuha almushahiduuna alkiram fi télévision sunu label tv nuxayikum bi taxiyati alislam taxiyatan mubarakatan min indillahi tayiba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 mi nu ko mayati ñaan yal na yàlla bokk nu defal jàmm julli sëlmal ci sangu àdduna ak laaxira sayyidul wujudi sallallahu alayhi wa nuyu leen ziyaar leen ndokkeel leen ñaan sunu borom bii def jàmm yal na yàlla dolli ci réew mi jàmm yàlla mi nga xam ni moo bari yërmande yal na yàlla dotti ko ci sunu kaw barke ci loxoom la ne yal na yàlla bokk na defal barke Euh, ndokkeelaat leen ci weer wu tedd wi ni ma ko waxee di weer wii nga xam ni moom la tuddee Shooban nga xam ni weer la wu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jago nga xam ni yonent bi sallallahu wax na ni Anas moo ko nettali yonent bi sax daan nañu wax ni naqu abdaanakum bi sawmi Shooban fa qabla siyaami Ramadan li siyaami ramadan nee na yonent dan daan nañu wax ni euh, nettuwaaye leen gaaw seen yaram nettuwaaye leen seen yaram ngir lan mu ngeen weer wi ngeen dëkkmal di weeru koor waaye nag yéen a ngi koy nettuwaayee ci weer yu ñu ne di weeru soobaan fa ma min abdin yasuumu salaasata ayaamin min soobaan summa yusalli alayya miraaran qabla al iftaar illa gafara allahu lahu zunuba ma taqaddam min zanbihi wa ma taaxar sayduna muhammad anas nee na daf ne leen amul kenn koo xam ni yàlla dogal na mu am intention ci weer wi ñu ne Moussa weer woor ci ñetti fan muy weer wi ñu tàbbi di sobaan mi woor ci trois jours lu dul na yëg ni yàlla jéggal na ko mboolem bakkaar yi mu weesu woon ak yi nga xam ni moom la def mboolem luy bakkaar yàlla baal na ko yal na yàlla baal na sunuy bàkkaar waaye bu nu ko baalee yal na nu am xelu war caa bañ delloo ti ndax loolu moo ñuy dimbali nag mbokk yi kon weer la woo xam ni weeru ndokkelante la weeru yiw la yal yàlla jël yiw wa sëmbaxtal sunu kaw ji barke si wujudi sallallahu alayhi wa sallam mel na ni nag bi ñuy tàqalikoo démb maa ngi ci ñeenteelu kiriteeru u ibaadu rahmaan yow mi mooy topp ci aaya woowu nekk ci suratu furqaan ca gen wata yàlla di ci jàmmal jàngale ay jaamam ok nañ bokk ci jaami yàlla yi bañ a bokk ci jaami iblis yi a ah, fii ñaari jaamu fi am kuy jaamu yàlla mbaa ko ànd iblis di ko jaamu nañu bokk ci jaami yàlla yi kenn ku ne dawal vérifier sa bopp ci ibaadu rahman yaa nga ca aaya wi ustaas di jàngale ñeenteelu critère bi ma wax la démb ne la yàlla daf leen a tàgg daf ne mooy ñi nga xam ni walladina yaquluuna rabbana asrif anna adaba jahannama mooy ñi nga xam ni seeni wax seeni jëf seeni wax waxe waa aljana la seeni jëf jëfi waa aljana la duñu wax lu leen di yóbbu safara duñu jëf lu leen di yóbbu safara loolu la leen yàlla tagge waaw wax naa ko ma ne du ñaan gi du da ngay toog naan yàlla ma dem safara yàlla waxul loolu ay dafa jara dégg du allazina rek yaquluna rabbana asrif anna azaba jahannam nga firi ko noonu ñu taxaw yàlla bu dem safara du loolu rek sunu borom nee na ci suratu xàqa ñi dem safara xam nga lu ñuy wax parce que Moussa bu ñu dekkee am na ñoom di rëgët ñu jëm safara sunu borom nee na am na ci ñoo xam ni buñ leen rëgatee ñu jëm safara dañ ciy boole naan leen liir leen liir leen livre bi leen jox xool leen ko parce que euh, mooy téere jëf yi xam nga yàlla leen du ma tooñ man duma ma lakkul ku ma informé wul lu tax ma lay lakk ba pare <laughs> kazalika du du ma dugal aljana ku ma informé wul lu tax ma lay dugal aljana moo tax yooyu faaw nu bàyyi ko xel yàlla leen du ma tooñ kenn bu kenn foog ni yàlla daa faral nit yëkkati ko yóbbu aljana yàlla du far Moussa ay far fii la am ay far fii la am ay benn nit napp nit ñi ñi faral la yooyu fii la am kër yàlla yooyu amu fa yàlla xamul far ku dem aljana bu nu tabbee aljana xam nga lu muy wax kullu washrabu hani'an bi ma kuntum taamaluun déggoo yéen a jëf lu tax tey ngeen am lii lay wax ni bu bëggee dem aljina da koy jëf waaye waa safara yi déglul dina am na ñoo xam ne bu ñuy liir seen téere jëf malaaka yi di ngàdd ñu jëm safara xam nga lu ñuy wax yaa laytani lam uta kitaabiya ci biir ci biir ci biir penc mi la de Moussa li may wax day fekk ñëpp a ngi gisante ñëpp a ngi gisante boobu demaguñ safara àggaguñ fa dañoo ne ci penc mi ku ne ñu jox la sa téere jëf ngay lecture di lire par kenn kenn ku ne di liir parce que ñun ñëppay jot suñuy jëf waaw ku dend ak sa morom yaa ngi koy gis muy lire yewit ngay lire waaye léeg nga di lire ba ci dàgg di ay waay yàqu naa de <laughs> ah, yàqu naa ki nga deel na leen waa lu xew sa waay yow yaa ngi jooy de lan lu xew mu ne man suma ma sañoon suma ma sañoon de tey jataay bii du demee nii mel ni dañ ko waaw lan moo xew lan lan moo xew yow kilifa nga woon de <laughs> diglul nag bu baax li may wax mbokk yi billahi li may jàngale sóoratu xàq ku dem di fekk aay bi may jàngale ma ngi foofu sunu borom may wax diglul baax ñi mu dendal ci àllaaxira ñoo ñoo ko mais kilifa nga woon xam nga lu leen ci tegal halaka anni sultaaniya kilifa gi ma doonoon moo ma alak mooy damaa foogoon rek kilifa laa maanaam may doxe nu ma neex muy halaka anni sultaaniya am na koo xam ne na kilif téefam moo ko alak moo ko yóbbu safara mbokk yi kilifa day def ndànk yilif kër gi bu mu tax nga ne lu neex def may papa yi kër gi waaye papa yi kër gi day tax ba fu la neex taxaw tuur ndox waaye bàyyi ma waay waaye Moussa nit ñi nekk ay nit waay nekk papa yi kër gi day tax ba ama tabax kër gi day tax ba fu la nekk tuur maam néegu ah waaye bul ñu fontoo ndox nga dem ca duus ba laa wax maanaam nekk kilifa tere wala nekk nit moo tax bari na koo xam ni loolu lay wax danaan halaka anni sultaaniya man alal jama amoon ci àddunaak doole jama fa amoon ndekete du dara maa ngi nii ñëw fii tey tuuti lool awma benn cër maa aghnaa ghannii maaliya alal jama amoon àdduna yëpp jëriñu ma fii wata ku jàpp ne alal ji dañ ko yóbbaale billahi nax nga sa bopp d'accord ñu ngi daw rek ku ne ci ñun alal nga tal ñun ñëpp a ngi daw mais ku jàpp ne da nga koy yóbbaale billahi nax nga sa bopp doo yóbbu dërëm coow lee bëri rek mais yàgg nañoo suul néew bi nu paree dañoo del si ci kër gi alalam dañ koo séddale waaw waaw ña cooy doonnu kër doonnu ca kër ña cooy doonnu oto doonnu ca oto ña cooy doon usine doon ca ña cooy doon leneen doon ca leneen billaahi dañ koo séddale yóbbuwul dara dix mille sax yóbbuwu ko dix mille dix gars yi bu nu gore woon xanaa sax jël six mille laxas ko ci kayit joxaale la <laughs> boo demee boo amee dooy jënd ay yu sew sewaat nga jënd mais gis nga duñ la jox dërëm xamul tax bitik buy buy jël xaalis bi amu fa <laughs> fa nga jëm bitig buy jël xaalis bi amu fa waaw dégg naa sama benn xarit sax ndeysaan nan ma ndax laaraaf am na ay jënd crédit ak yooyu xam xam nga moom ndeysaan Lamine Ndiaye yàlla ko yàlla yërëm waaw sama sama benn waaye la bu doy waar mais ma ngi may laaj naa ma laaraaf moom da koo dégg ñu koy détaillé mu ne laaraaf daal xam naa ni moom du àjjana du safara mais laaraaf laaraaf mu ne ma ndax laaraaf moom dafa am ay waaw génn dem doxee taxawaalu ñëwaat ndax am na ay jënd crédit woote léeg-léeg wéef ñëw mu ne ma ndax yooyu am na laaraaf ah baax na billaay ku defee di ko yóbbu dara nax nga sa bopp wéef yi du dem orange money yi du dem halaka anni sultaaniya maa ax naa xanni maaliya alal yi ñu am fi lay yem sunu doole yi fii lay yem nit mën nga am doole mais fii la yem doole àggul eh, firnde gi sax mooy doole xanaa moo balaa ngaa dee mu jeex da ngeen ku yore dooleem ba yóbbaale ko àllaaxira amul doole balaa ngay dee mu jeex fii lay jeexee ñépp di ko tëg bët xam ne amatoo doole mo nit bu tëddee feebar dooleem jeex nit bu ñu nangoo liñ ko joxoon dooleem jeex nit bu amatul xaalis dooleem jeex mbokk yi nañu def ndànk sunu boroom nee na jaam ñi ma reconnaître seeni jaamu mooy ñi nga xam ni du ñu def mukk jëf ju leen di yóbbu safara duñ ko nangu duñu ko jëf mukk mukk xalaatuñ ko ci seen xel ndax dañuy xalaat ñi dem safara ñépp daawuñu xalaat law kun naa nasmaw aw naqilu ma kunna fi ashaabi sair nanuy xalaat nanuy xalaat dee day am nuy xalaat bàmmeel day am nanuy xalaat munkar ak nakiir dañuy ñëw laaj ñu nanuy xalaat dañuy dem ci kanamu borom bi taxaw mu rek la ñu nanuy xalaat mbokk yi nanuy xalaat sunu borom ne nit dana dekki naan li ma dugal safara mooy sama doole ci sama doole rekk mu dugal safara am na ci ñoo xam dañ naan wa kunna naxuudu maal xaa'idin waaw nekk ci lu ñu neex rekk waaw nekk ci lu ñu neex nekk ci àdduna defe ne àdduna rek am ñu ne ci xataa ataanal yaqin ba dee na dàq suñu kanam mbokk yi ñi amoon doole am nañu dee ñi néew doole am nañu dee gis nga dee am doole tere la dee am xaalis terewu la dee am cër tere wula dee maanaam lool na ko nit ñi bàyyi xel kuy def li ngay def sóoraale ci ne dee ngi ci sa kanam te nag wa kullu ma yartaji qaribun waaye wal mawtu aqrabu minu lu waay yaakaar dama ne lu yaakaar dil bu teg ba defe ni dil bi day daanu d'accord dil boobu nga teg jàpp nga ne soreetul ma teg samay pion pion yi sorewul léegi ma rek le ko billahi imam malik nee na kaay ma wax la dee ko gën a jege Moussa pion bu waay teg dee gën a jege pion bi ma ne pion bu waay teg pion bu waay teg fii koor gi di ñëw xam nga fii ak koor gi di ñëw soreetul weeru koor fii muy ñëw pion yi fi waay teg yëpp maa ngi lay wax ni billahi dee ko gën a jege malakal mawti heure bu xëyee Moussa soixante di fois lay fóon sunuy ruux <laughs> soixante-dix fois dina ko fóon ruux waa koo xam ne heure bu xëyee fóon su ruux soixante-dix fois jege na la de xamoo ban heure lay bës bouton bi koo xam ne ma ngi jaabante ceew di dem di ñëw rek soixante-dix fois amoo xarit boo am booy gisanteel soixante-dix fois ci journée bi kenn gisantewul ak ndayam soixante-dix fois ci journée bi malakal mawte soixante dix fois dina ko dina ko dina ko fóon ruuxu doomu aadama buy dund bu de dana la fóon soixante dix fois ci bëccëg gi mbokk yi wa kullu ma yartaji qaribun waaye wal mawtu aqrabu minhu yëpp ñu jàpp ne dañ koy fekke kenn ci ñun xamu ci dara xoola kenn ci ñun nag du xalifa général du président du ministre du kenn ku mene waat ni yii yëpp ñu am damay fekke Ah, mbokk yi nañu def ndànk nañuy delloo sunu bopp sunu boroom tey mayutu safara alladina yaquluuna rabbana asrif anna adaba jahannama lu tax inna adabaha kaana garaama innaha saat mustaqarran wa muqaama mbokk yi safara dafa raglu dee te dina Euh, dafa jar léeg-léeg ñu koy waxtaane xam nga ne Moussa fii réew mi sooy waxtaane safara sax ñu ne may oustaz bii dafa tàng waaw ah, kenn du ko déglu ñun daal ñuy foo lañ bëgg a déglu maam ku ñuy wax ay foo ay caaxaan ñu déglu leen mbokk yi bu ñu bëggee ragal yàlla dañuy déglu ñu ñuy wax dëgg alxuraan mu ñuy wax dëgg nanu mu wax ñu dëgg la góor ga daan wax naan doom ku dem ba kenn mënu laa wax dëgg yàlla nga déglu alquranul karim di la wax dëgg mbokk yi nanuy seet ñiy jàngale alquran ñu firil ñu ko wax ñu dëgg ñu bàyyi ay caaxaan euh, man nag mu sax naa ko nee naa dara yàqul nit ñi lu dul premièrement ñun borom xam-xam yi ñu tuddee ay oustaz ay fola ñuy def suñu plateau ay fola ay caaxaan waxtaane wu ñu dëgg ay fola ñuy waxtaane ay caaxaan nit ñi di caaxaan après ñëpp ay caaxaan waa léegi nag bu réew mi yàqoo ku nekk taxaw na ci àngal naan waaw réew mi nañ ko réew mi nuñ koy defaree yéen ngeen yàq ba pare di defar maam nañu wax nit ñi dëgg wax leen ne safara am na maam réew mii ñu bëgg a nekk ne safara amul loolu moo jaaduwul nañ wax nit ñi safara dafa am ku jubadi boo deewee da ngay dem safara mbokk yi nañu jubbanti sunu bopp sóoraale nu dañuy dee njubadi gi waay di def dee ci calculer waale dee mën na ma caa fekk maa ngi ñaan yal na la jubbantil ñu boppam yal na la làqal nu boppam safara daal mbokk yi nañ ci dégg di doy waaye nag ku bëgg dégg di la ca doy da ngay fexe ba jubbante sa bopp bala nga ñaan yàlla ci julli mu doon dëgg ci yow yaa ko ne ihdina siraatal mustaqim musaa yal na yàlla jubal ñu ci yoon wu jub te bañ ñoo dëngal ci yoon te ñu bañ a song yoon wu dëng wa nga xamante ni ku ko song yàlla génn ci yow maa ngi ñaan yàlla bu yàlla génn ci ñun yàlla nu yàlla teel boppam jéggal nu sunuy bàkkaar te jubbanti sunuy xel may ñu ñuy xalaat law kunna nasma'u aw naqilu maa kunna fi ashaabi sair mbokk yi nit buy xalaat rek di bàyyi xel boromam rek billaay mën na bañ safara yal na yàlla dimbalee ñu loolu mbokk yi waxtu wi dabaat na ma ma tegati baaraam man ak yéen nu àndaat dajawaat suba ci jël sër nabi di jataayu sayyiduna muhammad wi sallallahu alayhi wa gërëmaan ñëpp santaan ñëpp ñaan sunu label yal na yàlla yëkkatiku sunu directeur Hadj Makhtar Sylla yal na yàlla taxawu ay mbiram biir ak biti maa ngi ñaanal boroom xam-xam yi yal na yàlla may nuy wéralante te bañ di werante sunu mag sunu sëriñ Alxaaji Idrissa Diop bu rahmatullah alayhi tafsir Oustaz Oumar jóob ma nuyu ko ziyaara waale ko mu yóbbaaleel ma boroom xam-xam yëpp géew mbokk yi waxtu wi dab na ma ma teg baaraam àndaate ak yéen suba ci ñeenteelu critère u Ibaadu Rahmaan te mooy walladina yaquluuna rabbana asrif anna adaba jahannama inna adabaha kaana garaama sadaqallahu lazim ida aradtum salaamata al ardi fattabiu muhammadan wa ariu hayatal ummi mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waman adallu mimman yad'u min